li nga xam ne rek euh, mooy Grand Yoff cité millionnaire ñu ñëwoon seet suñu benn euh, tata boo xam ne dafa nekk ci njàkkare njàkkare bi lan la doomam bu jigéen euh, boo xam ne rek dafa feebar tawat bi nag doon tawat boo xam ne bu yàgg la na mu commencé euh, problème de peau la euh, muy euh, derme muy li nga xam ne rek dafa doon def ay góom di yàq yaram bi di toj dema dema dema dema dem ba yaram bi yëpp yëpp yëpp def comme lu mel comme ay écailles mu doon loo xam ne rek lu metti la mais yëf yi nag di ci topp mooy nekkul rek ni mu yàqee yaram bi mais def ci boole di metti ci biir maanaam yaram bi yëpp euh, metti mooy metti euh, muy euh, koo xam ne rek di ngeen ko gis léegi léegi léegi laataa ñu leen koy dégtal dañ lay bàyyi dañ leen di bàyyi rek ngeen seetaan suñu yaay mu daal di nuyoo ginnaaw bu ñu leen nuyoo bu baax ziar leen yéen ñiy teewlu di leen wax ne yéen a ngi seen émission 7 voix du cœur sur la 7 TV maman nuyu nañ la bu baax a baax ñu bàyyi la nga nuyoo daal di wax tur bi ak sant bi. ñu ngi lay bu baax seen. Mhm. asalaamaaleykum. salaam. tur bi ak sant bi yaay Khady Sène mhm. euh, yaa ngi dëkk fii ci Grand Yoff cité millionnaire. Ah, dëkk mhm. mhm. euh, yaay ñu ñëw euh, seet si la lii doon loo xam ne rek yàgg na ci yow jaaxal na la muy tawatu sa doom bi mi ngi tëdd depuis 2012 ba tey. amul euh, jàmm ci li nga xam ne rek euh, mooy wérgu yaramam ma bàyyi la rek euh, nga daal di ñuy àddul ci naka la ko yëf yi dikkale laataa ñoo ñëw ci moom. ni mu ko dikkale. Mhm. gis neen image yi ngeen gis mooy soxna si nga xam ne rek mooy feebar moo feebar muy doomam ji ma bàyyi rek sama yaay mu nuyoo laataa ñoo ñëw ci témoignage kooku. seen tele bi jëm ca kanam. amiin ndax xam na ñu bari ñu muy xetale ñu muy dimbal. daan mm-hmm. na suñu boroom daal fay leen. Mm-hmm. seen yéene. man sama doom bi dafa amoon un jour mu ne magam bu jigéen boo xam ne mag ndeyu kooku ñoo bokk baay. Mm-hmm. mu ñëw ne ma tànt ma ne ko naam mu ne diw day dem dëkk ba damay dem dëkk ba ci ay communion damaa bëgg mu ànd ak man. kooku sama doom la. lu ne la may dama doon defal. Mm-hmm. ma ne ko ànd leen. xale bi dem ak moom communion ba ñëw ci seen communion yooyu bi mu demee ba ñëw ci la ma woon benn taas nii ci pooj bi dama yaay lii de foofu la ma dale ma ne ko mbaalee koo dar kase loolu laa ko njëkk a adressé. ma ne ko mm-hmm. mbaalee koo dar kase mu ne ma déedéet mu ne ma waaye damaa gént dara màtt ma. Mm-hmm. ma ne ko mu màtt la mu ne waaw ma ko ah lii de ci séeréer dañ koy naan di labaal. këriñ nga ciy rëdd ak cox wala ak cere day deñ mais ma def ba sonn yëf di ma gën a sonal di gën a sonal sama doom te comme sama fi ko dalee maag kooku ñoo bokk benn baay ruus naa cee wax loo xam ne doomu aadama dina ko dégg muy ñaaw muy ñaaw mhm. ndax doomu baay dafa foor mhm. ma dugg fu ne fu ma yaakaar ci àddina dugg naa fa ak sama doom mhm. jéem naa itamit ay magam jéem nañu ki ñuy wax maam xaadim amul lu mu jéemul ci moom comme lu baayam jéem ci moom rek man mii ndeyam li ma jéem ci moom maam xaadim jéem na lu ko ëpp léegi nag dara changé wul ñun ay analyse soixante mille la ñuy laaj ay analyse quarante mille ay analyse trente mille analyse ñu ko laaj dagg nañ yàpp bi sax ci yaramam pour def analyse hôpital Fann kii Dantec Dantec dara gisuñu benn résultat saa yu ñu defee analyse duñu gis dara dem na ba CTO fii ñu ne ko da ngay def analyse test sida nee na bi mu ko def bi ko médecin bi waxee loolu moom gis médecin bi gisul mu tiit gisul mu def dara gisul mu réagir mhm. médecin bi ne ko lu tax tiitoo mu ne ko du ma tiit parce que xam naa xel ne lii du feebaru sida ndax man defuma lenn mhm. lu ma jox loolu mhm. man maa leen yar xam naa samay doom jullit yàlla yi nga xam ne ñoom laa seqal ñuy toog ñoom xam nañ samay doom demuñu dikkuñu xamuñu dara lu dul jàng ñëw ci kër gi. ñëw ci kër gi liggéeyal ma. Mhm. daa sëriñ ki mën na ma témoin kii moo leen yar. Mhm. léegi nag ah bu doon yar rek ak maandu lii lii ko lii du ko jot. du ko dal man xam naa loolu xam naa loolu bu doon maandu rek. Mhm. ak yar lii du jot sama doom daara ja yar lañ ko xamal mbedd mi aussi sa doom yi dañu yaru rek lañ may wax. mais lii nag. dalaa jaaxal. dafa ma jaaxal trop. te xamoo lan la benn leer na ma leer suñu borom ne ak sëñ Touba ma yaakaar du ma nelaw. Mm-hmm. damaa nekk nit koo xam ne rek dama am weeruwaay. Mm-hmm. mooy sëñ Bamba. Mm-hmm. boo weeroo ci moom lu la métti métti métti boo génnee rek. day nit ñi du ñu xam ne kii am na lu ñu xam ñu xam. mais may métti ak li may dund ci sama biir kër gii. man ak yàlla rek ñoo ko am mm-hmm. parce que doom bu jigéen dafa sax ci xol. daa sax ci xol kii bu nekk doon feebaram bi yàlla may na ko borom kër. bu yàgg. Mm-hmm. ñi xam ne ni mu meloon. Mm-hmm. kon nag feebaram bi lim ko lim ko gaaral. dafa bëri. waaw lim ko yàqal dafa bëri. parce que jigéen ah am na foo xam ne boo fa tolloo moom góor ñi sax daf leen a dafa am kersa sax toog ak góor. parce que ndax feebar bi. ndax feebar bi. waaw yaay dogguma la massa euh, dañuy dem euh, seetaan ko moom euh, Astou Gawane seen mi nga xam ne rek moom ngeen gis ci image yi yaram bi nag la ñu wane ndax nag doon na nitu kersa. daama euh, du lu ñuy def sax nag ci émission bi waaye nag bii mënuñu ci dara ndax euh, xale bi du siggi xool nit euh, doon na nitu kees ga nga xam ne oh, du lépp lépp lépp la mën a wax ñu dem xooli ko ci témoignage daal dellu soit léegi ci waxtaan bi sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur feebar bi may dal xaw na yàggu trop ay jamono 2012 la ma daloon waaw boobu nag sonnoon naa trop moo yàq sama jàng bi waaw dama doon jàng waaw troisième la bàyyi jàng. troisième nga bàyyi. Mhm. bi ma koy def dafa fekk ma feebar ma tëdd. feebar bi nag dama demoon sama benn dëkk sunu benn dëkk foofu laa demoon mais si gént gi dama gént woon am benn jaan bu ndaw bu ma màtt mais bi ma ñibbisee damaa gis euh, ay taches noires ci sama yaram. Mhm. léegi wax naa nag après bi ma ñëwee nag ma gis taches yi bëri sama yaram ma ne sama yaay seetlu ko ci man ne ma lii la ma ne ko man daal benn yoon laa géntoon daal am na lu ma màtt waaye depuis boobu ba tey mu ngi law sama yaram yi eh, boobu ba tey daal. xaw ma jaam waaw maa ngi jaam. da doon métti da doon def ay góom góomu yu siit foofu yëpp lay def da doon siit di def lépp waaw da doon def ay góom. mais am na ñaari at daal su ma juumut tâche yi daal ñoo fi nekk rek di ma sonal ak dafa deewal sama yaram du ma mën a liggéey dara waaw sonal na ma nag lu bari ndax yàqal na ma lu bari ci sama bopp du ma damay xat fu ma toll fu ma toll damay bëgg a nekk ak ñoo xamante ne nii nekk naa à l'aise yàgg naa ak ñoom rek laa mën a nekkal def naa nag sama formation 4 ans euh, ma doon def restauration ak couture mais ma ko defee ba pare nag affaire bi daf ma xawoon na daaneelaat ñu yóbbu woon ma Casamance ma ma fay faju def naa fa un an après ci laa ñibbisiwaat mais depuis loolu daal maa ngi faju ci hôpital yi fu ma dégg rek ngi maa ngi faju bi nga xam ne moom jàpp naa ko bu baax te duma ko mës a fàtte dama def sama formation ba pare amaguma woon liggéey ma ne xaaral nag ma ma jaay beñe ci watu stade bi rek ma demoon di fa jaay nag mais dafa am jour boo xamante ne benn paa daf moo daf ni ma jaay ma ba pare ba ma ba ma jox ko lekk bi ba pare mu xool sama yaram yi ne ma am jëlal baax na mais loolu nag mu métti ma loolu premier jour boobu laa jaay mais delluwaatuma jaay ba tey moo tax nii nii maa ngi maa ngi foraatu mais sama loxo duma bëgg mu feeñ du bëgg dara feeñ. xam nga am na ñu ci gëmul ñu gëm yàlla am ñu gëmul yàlla waaw saa bu ne ma gis nag bu nekk. mais li tax nag ma muñ ma ma am ak muñ dëgg dëgg dëgg samay mbokku taalibe ñoom wax dëgg yàlla aw maak ñoom aw ma aw ma seen fay waaw. ñoom wax dëgg yàlla dañ may dalal sama xel tout le temps fu ma nekk rek ñoom ñooy tax sama xel di dal li tax bëgg ma sama kanam feeñ sax du loolu ndax wax dëgg yàlla am naa gëm-gëm yàlla waaye dafa nekk ci man loo xamante ne dafa sensible waaw waaw kersa la ci man dama cee am kersa lool sax waaw loolu dong la waaye du leneen. waaw dund naa foo dëgg yàlla yu metti teg naa ko coono bu ne parfois sax moom dama mitit bi bu ñëwee sax damay bëgg a euh, muñ mitit bi ndax moom nu muy nu muy réagir waaw ndax am na ci année boo xam ne moom wax dëgg yàlla euh, deux mille vingt vingt vingt la waaw deux mille vingt et su ma juumut année bi ma dem Casamance boobu dama leen a sonaloon loolu sax waaw. boobu moom wax dëgg yàlla jàppoon naa ni xaru sax daggan na ci man ndax métit bu ma doon di dund waaw teg naa waaw teg day def ay góom di ma def comme crise année boobu def maa mel ni lu ma crise loo su mitit bi ñëwee may jàpp fu ne laay jàppandu damay ñaq tooy xepp du ma xam sax ndax lii siti la du man daal xawma daal feebar bi daal mu ngi nii waaw feebar bëri de bëri na parfois nga gis nit mu seexlu la mu jàpp ne lenn sax da koo mënul ci sa loxo yi waaw bëri na wax dëgg yàlla yoo xamante ne daal du lépp la ñuy mën a wax waaye daal bës boobu daf maa marqué loolu ndax damaa jàppoon ne kooku ab mag la sax sama moroomu papa la bu ma gisee sa xanaa war naa mën a xam ne lii ab feebar la rek bu natt bu ma tegu rek si sama kaw. waaw appel bi may lancé moom man samay mbokku taalibe rek laay waxal ñoom xam te ne mën nañ maa jàppale rek waaw ma faju ndax dëgg yàlla sonn naa. hôpital yi ma jot a xam yëpp ndakaaru bariwul yu ma demut hôpital yu mag yëpp dem naa fi façon analyse bu nekk def naa ko dagg nañ ci yàpp bi def analyse lu ne daal def nañ ko waaye gisuma tan ci sama yaram te ba pare faible faible bi may feebal daf ma jaaxal lool du ma mën sax def lu bari waaw loolu daal laay ñaan ñu dimbali ma ma am ab tan ci sama yaram waaw ku ma mën a jàppale waa ñii ñaan ma kenn jànkatu xasida yi ñiy durus ma kenn sama mbokku taalibe yi maa ngi leen di ziar bu baax di leen ñaan ngeen ñaanal ma ma wér man weer rek laa bëgg. waaw ñooñu de wax dëgg yàlla aw ma seen fay ndax bu mu méttee balaa maa gis kenn ñoom laay njëkk a gis waaw sama wayjur bu góor maa ngi koy ziar bu baax sama wayjur bu jigéen tamit noonu maa ngi leen di ñaanal rekk ñoom wé maa ngi leen di ñaanal daal ñu yàgg fi lool ba nga xamante ne dinañ mos a fekkee sama njariñ waaw sama mag samay mag ak man ñi ma bokkal yëpp fàttewuñ ma su ma feebaree day mel ni ñoom ñoo feebar sama mag bu góor xaadim waaw xaadim mu ko mës a fàtte kooku wax dëgg yàlla bëri na bëri na lu ma dund ak moom day jàpp ci sama sama tawat bu bëree bëree bari waaw année année bii nga xamante ne dama tawatoon loolu ba sonal sama dafa yëkkati xaalis bu bëri yóbbu ma Casamance waaw yoon gi rek ni ma ko dundee nu mu ko dundee rek xaw ma sax nu tool toll te ma toog fu lu mat at mu may yónnee xaalis di ma yónnee dund di ma yónnee lépp lépp la ma defal waaw moom fàttewu ma wax dëgg yàlla ndax mën ngaa bokk nit ndey ak doo ko te doo doo ko dimbali doo ko defal leen waaye moom wax dëgg yàlla fàttewu ma ko ñoo bokk ndey ak bàyyi maa topp ci moom mais dama koy ñaanal rek fu ma tool sama mag bu jigéen tamit noonu moom tamit tawat bi day metti lool mu xam ne kii sonn na waaye du ma mës gis fu mu fu mu changé kanamam wala leneen waaw ma leen di ñaanal bu baax a baax a baax. jërëjëf euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, gis ngeen ko muy lu metti lu daw yaram. Euh, ma koy wax ne rek euh, da nga koy muñ loo yàlla ndax sa borom euh, sa wéyjur wax na ko léegi ku am ndëgër laay la ku am wéeruwaay la te fi mu wéeru suñu xel dal na ci yaakaar naa ne kenn du fa wéeru di jàng kon nag dinaa ko bàyyi rek yaay dégg nga ko wax na ci ni nga xam ne noonu lay dundee feebar bi moom asu wax na ci li nga xam ne mooy moment yi ci gën a metti naka nga dundee loolu ba maman yi ma ci gën a métti. li ma ci li ma ci métti daal mooy samay mbokk. samay mbokk rek ma ci métti dañ ma seetaan ak sama doom. bu dul woon taalibe daara ji mu bokk. xëy na sax ñàkk naa sama doom. parce que wax dëgg yàlla lu ciy niin daara ji man magam te ma am ay mbokk balaa ngay naan demal ci kii demal ca kale demal ci kale mais ñi ma bokkal pourquoi ñu ma seetaan ak samay doom. Mhm. sa doom ma loolu nag moo ma ci métti dañ maa seetaan dañ maa xam ne xamatuma bu ma amul woon ñii fan laay jëm mhm. bu ma amul woon sama mbokku taalibe yi fan laay jëm ñii dañaa dañoo mel ni man maa leen jur mhm. ci sama doom yi ci xale yi dañoo bëgg sama doom yi bu du woon moo tax ma ne leen am na loo xam ne mu ngi ci sama xol mais sëñ Bamba moo tax may nettali lii parce que mun naa dee wala ma dof. Mhm. kan mooy dajeeg man ci mbedd mi nga xam ne nga xalaat ne. maire bi kenn du ko xalaat. am na problème ci biir këram xam nga mos naa la ko wax. Mhm. ma seen est-ce que di nga dajeeg man ci mbedd. nga ne maire bii bàyyi na doom bu mel nii. wallaay doo ko xalaat te wallaay azim seen du ma nelaw. Mhm. Cheikhul Khadim xam ne du ma nelaw. rawal damay xalaat sama doom guddi ak bëccëg. rawal. léegi nag damay ñaan suñu borom ku ma mën a dimbali ci sama doom ci saayir wala baatin. bu dee docteur la. Mhm. Euh, ba laata ñuy dem ci ndimbal bi ndax dinañu joxe numéro téléphone am léegi pour ku ko bëgg jàppale fi ngay woote euh, yaay euh, sa doom li la metti bëri na. am lu ñu mën a wax am lu ñu mënul a wax moom it li ko metti bëri na mi ngi joxe exemple naam feebar na loof na mais mi ngi bëgg a jóg mi ngi bëgg a liggéey li mu expliqué léegi ci bi muy dem jaayi beñe naka nga ko dundee ba boobu ba mu ñëwee dala koo expliqué ba mu ñëwee naka la demee daf ma ko wax rek dama jooy rek jooy yi ma dëkkee rek seen moom laa def parce que xam naa ne koo xam xadi seen ku ma xam man ba yegg si sama kër bu ma tibbee suuf jox la nga lekk sax di nga lekk ci set ci yar sama doom ci set yar leen ci ci civilisation bu demee ba nit di ko siixlu daf ma xamul man mii ndeyam te da koo xamul loolu rek moo ma ci def problème ma xam ne ma defee ne nit a ngi daw nit ci mbedd mi fekk boo xamoon waa juram wala nga yegg si ci moom. doo ko daw doo ko daw. Mm-hmm. man xam naa ne xëy na ci feebar bi ci der bi rek la ne mais newul ci civilisation. Mm-hmm. daara ji li muy rëy rëy rëy moo ci presque defe naa ñi mu ci mag bëriwul waaye bu tiimoo mbana bi génn ca mbana ba mën naa am ay témoin. moom mi moom moo ko toog. ah. wallaahi azim. mbana macha allah wallaahi azim. wallaahi kon xam nga jaay beñe da ko jublu rek di ko def mais xamoon naa ne du sotti parce que xam naa nit ku ñuul. waaw ñuul fi muy gisee lu doon foofu waaw ki ki ki ki xeesal di jàmb beñe. <laughs> der kii der rek la yore. der bi am problème mais xeesalul deful produit chimique ci loxoom. Mhm. bu la jaayee beñe jëlal rek. même boo mhm. koy saraxe. nga saraxe ko. nga saraxe ko comme mhm. kooku kilifa la nee na moromu baayam la. ma ne ko daa gàtt xel rek bi ma nettalee dama kon daa gàtt xel gis-gisam leerul. Mhm. bu gis-gisam sori woon tuuti da koy jël ba pare. dem may ko kenn daal di gestu ne am yàlla jox la. Mhm. yow ci xam dara ndax ndax loolu tey jii. moo koy moo koy encouragé loo mais ba tey mosoo ko fàtte. du ko fàtte xam nga kooku gaañ na ko. waaw gaañ na ko noonu la jëlee farine boobu da ko sànni presque sax jaayatuñ ko. Mhm. ma ne ko loolu du sa jaay seen. seetal leneen. seetal leneen. te pourtant mu ngi jaay ci daara ji loolu fekk ko ci. fekk ko ci ci ay mbokku taalibe ñu ngi jënd ci loolu foofu. nit noo mel am ku la accepté. waaw ñu ngi ko accepté. noo mel am ku la accepté xel la rek xel la rek ñooñu accepté nañ ko. Mhm. waa daara ja bëgguñu dara lu ma metti bëgguñu dara lu metti samay doom mun ma leen a fay. Mhm. bu ñëpp meloon comme ñoom waxuma ne sama doom bi dina wér de waaye dina ko jege. sa doom bi dafa bi bi bi inscrit foofu boobu feebar na. ñu ngi escalier si daara ja waaw. Mhm. fekk na mu feebar. mais melul woon ni. mu ñëw ñu woon ak taayam. Mhm. xam nga ni mu ko jeexal moo ñu gën a traumatiser ak traumatiser ko moom. da koo jeexal nii da koo jeexal trop. koo jeexal parce que lu lekk euh, bi mu demee polo polo colonique dañ ko njëkk a wax ne da nga anémie. Mhm. da nga anémie te ordonnance yi nañ ko te dara taxul dañu dafa anémie bu mënul taxaw. ni mu ne ni mënul liggéey dara mag jee liggéey yëpp. kon animé animé bi ordonnance yi muy jëriñ. te loolu yëpp def na ko. de boobu ba léegi dem nga hôpital bu nekk moo xam Dantec. principal polyclinique dant fu nekk dem na fa fa ndax mm. xaalis ay dem principal. Ah, demoo principal. mais hôpital yu mag yi am na yoo jot dem. waaw CTO dem nañ fa. CTO Dantec ak yooyu yëpp. dem naa Dantec dem mm-hmm. naa CTO dem naa wo kii Wakaam. Yaaso. Yaaso. Mm-hmm. yóbbu ko foofu. ci wàllu pajum olof bi yaay am na foo leen dem. waaw bajum pour olof bi kay dem nañ fu ne. xam nga Casamance mag jee ko fa yóbbu booba loxo baa ngi bëgg a nëb. loxoom. loxo bi. waaw <laughs> bu la ko wanoon moo moo tax baaraam bi def nii sax loxo bi tuuti mu nëb ci la ko mag ji xaacoo rek yóbbu ko Casamance mu am fa un an loxo bi wow. loxo bi dafa defoon góom di gas. dafa defoon góom ba bugg a infecté ñun Babacar moo ñu ko doon fajal xam naa ndeysaan daa sonn mënu ci dara. Mhm. ci la mag ji ne yaay xaar ma yóbbu kii Casamance ci la ko yóbbu Casamance ci genn góor bu baax foofu ma koy sangatal di ko jox ay yi muy baxal muy naan yooyu daal wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla bu baax parce que comme comme góom yi ñëwatul rek. man mm-hmm. la mel na ni paa bi mën na ci dara. Mm-hmm. jéem na ci dara. Mm-hmm. waaye dafa metti waaw dafa metti faj mi xale bu jigéen bii euh, bi ma bi may fóotal bi mu xoolee yaram yi daf ma ne yaay lii Guinée Bissau lañ koy fajee. Mm. waaye xaalis bu weex tàll nga fa yóbbu wallahi azim dañ doon añ rek mu gis loxo yi mu ne ma ndoxum siti du ndoxum siti de waaye man far wër naa ndoxum siti ba sonn wër naa hôpital ba sonn lu ma yaakaar rek seen def nga ko def naa ko léegi nag yoratuma dara bu ma dee woon tey ñu ne lu mu doon liggéey Ndakaaru ndax yow ba nga ma xamee ba léegi wala sa yaay xam ma gisuñu ma ma yend gisuñu ma fanaan te wallaahi azim bu ma dee woon tey kenn du ma miira cinq cent mille day daw rek day daw may daw rek seen daw léegi nag daw naa bi sama doole ji yàq ma ñaan yàlla ngeen dimbale ma wala ngeen wut ku ma dimbale sama doom ji buñ ma dimbale woon ci sama doom bërsët ma dee sax ma yegg nii mu mel nii xaw ma ndax dina am borom kër xaw ma ndax dina am takkandeer loolu bu day des sama xel man dama rey. naa ko xalaat ba faatu. doo faatu doo faatu. ni ma samay mbokk seetaane. Euh, metti na trop metti na waaye nag euh, comme ni nga wax rek euh, yaay booy am nga ndëgër laay. Ah, ndax nag li nga dund yàgg na. 2012 ak léegi du benn fan du ñaari fan. boo gisoon sama doom ji ba ñu wan la ko tey mu mel nii. ba tey mi ngi rafet ba dee macha allah. ba tey mi ngi feebar bi def na ci moom lu bari de xaw ma nag feebaru lan la. waaye def na ci moom lu bëri génne na ci moom lu bëri. ndeysaan yàlla rek xam na duma ma ci wax mukk lu yàqu mbokk. rus naa ko seen du sama deret. Mm-hmm. waaw ndax mm-hmm. yàlla la yàlla la suñu borom mooy tege suñu borom mooy tege moom ko teg euh, kon nag yàlla na ko suñu borom teggi euh, ci bu jotee euh, di ñaan mu gën a gaaw nag ndax xale bi sonn na. analyse bu nekk surtout fan yi <laughs> lekkul naanu. lekkul naanu déedéet. lekkul yaay dañuy dem seetaani mbokku taalibeem. waaw euh, del dellusiwaat sëñ Cheikh ñu dem xool ko daal dellusiwaat léegi ci waxtaan bi. daal di euh, dellu si si ki nga xam ne rek mooy kaaw Astou Gawane bi nga xam ne euh, yéem na ay waajuram ba tax na ñu indi ko ci 7 voix du cœur léegi léegi lay doon sur la 7TV. ñun moom dañuy santaat Serigne Touba bu baax ndax Serigne Touba daa am lu mu ñaanoon boromam. yaa rabbi ij'alil muridina maa fii xisnika alxasini wa samlañ maa aaral ma sama murid yi ta booleel ma leen ñu bennoo àndandoo noonu rek lañ koy jàppale ak di ko xool ci suñu jëmmi bopp ndax kenn ci ñun ngëmam yàllaam du mën a mat ak bëggam Sëriñ jubaa du man a mat loolu ne bët bi mi xool jëmmam lay xool moroomam moo tax tawat bi ko dal danoo jàpp ne suñu jëmmi bopp ndax nit ku ne jëmm moo ko gën a jege danoo jàpp ne mënoon nañoo dal te te dara weesuwut ci suñu dund ndax àdduna moom guddi gu bët setegul rek la waaw weeru koor la feeg jant sowul rek am juubu weesuwul kon boo gisee sa mbokk julit sa mbokk taalibi suñu boroom am natt bu ko teg wala tawat bum ko teg bu fekkee ne ku kuy bàyyi xel yàlla nga kuy sant yàlla nga da nga war a ànd ak moom ci loolal ci mettitam boobu lépp ba mu ci moom man de yàlla dogal na ñëw fekk ko ak tawat ji waaye depuis ma ñëw fekk ko ak tawat ji tamit yërëm naa ko lool ndax li ma ko gën a yërëmee moom wax na ko ci biir ay waxam sax maanaam moom suñu borom da ko def muy nitu kersa fi ne bëggul kenn ñëw fi ne jàpp xam ne dara dal na ko fi ne eh, image bi ngeen koy jël rek loolu nekkul lu bëgg-bëggam lu diis la moom fi ne bëggul kenn ñëw xam ne benn tawat dal na ko eh, bëggul bëggul mu feeñ ci ay waxam bëggul mu feeñ ci comportement am bëggul mu feeñ ci aw definam kenn ëpp ko jom ci liggéey boo ko gisee muy liggéey da ngay jàpp ne dara dalu ko bu toogee di waxtaan ak da ngay jàpp dara dalu ko te fekk metti du metti la yore woo xam ne diis na ci moom lool ndax ay waajuram def nañ ci liñ man lépp ay mbokkam def ci liñ man ay wëllëreem ay mbokki taalibeem def ci liñ man lépp waaye nag duñ naagu ci yërmaane yàlla waaw laa taqnutu min rahmatillah ñu yërmaane yàlla alxuraan wax ne bu leen ci naagu waaw tey maa ngi ko koy wax sànq rek mu fi ñëwee ndax nit bu feebaree boo ñëwee da nga koy delloo ci lu koy dalal xelam di ko nettaliwaat xissa yonent yàlla ayuba alayhi salaam li ko daloon ba demee ba saxee di lekk yaram yi ba nar a yegg ca làmmiñu dana suñu borom baal ma fi làmmiñ wi ndax boo ko yóbboo kat boo bàyyi saxee lekk kat duma dutuma am nu ma tuddee suñu borom maanaam kon lu metti yàgg naa am ci àdduna te li yàlla digle da koo def moo ay juróom ak mbokki taalibe yi ci ànd ak moom yëpp mooy yàlla teg la nga nangu ne moom ko teg boo de muñ te sabablu li ma dund ak moom moom ci tawatam ji man naa wax ne bokk naa ci ñi mujj xamante moom ak ak juróom waaye nag mën naa wax ne bokk naa ci ñi gën a xam ci tawatam ji ndax tawat joo xam ne bu lay dikkal day génne ay góom ci sa yaram loolu waxuma sax nga di ko nëbb nit waaye yére yi eh, pour nga sol yére rek du du yomb ci yow na jamonoy tàngaay bu ñëwee nga am yaram boo xam ne day am ay góom loolu boo xoolee ci sa yow mi nga ne boo solee yére bu tàng eh, yére nii rek bu tàngee li ngay bëgg mooy daal di summi ko ngir mën a féex li ngay bëgg mooy jege ventilo ngir mën a féex kon ñeewante googu am na am na ak ñeewante gu rëy goo xam ne ñun ñeewante gi am ju moom jamono bu nekk rek saa buñ ko xoolee rek li ñuy njëkk a bàyyi xel maanaam mooy dañuy wéet di ko ñaanal yàlla fu toll di ñaan di ñaan suñu borom tawatam jii mu teggil ko ba noppi lépp luñ jàpp ne bu ko jëfandikoo mën na ko mën na koo fajal dañ ko koy wax toujours duñ mën a yëkkati jox ko ko tamit dañ ko koy jox ngir waaw moom ku am la ci daara ji ko ci jàmbaare la ndax jigéen moom bu fekkee ne bëriwoo ay wax te yiwee te bu liggéey jotee kenn ëpp la pastéef kenn ëpp la pas-pas loolu doy na sëkk ci daara say wax bariwut say jëf euh, euh, bari na sa pastéef rëy na te mbokki taalibe yépp ku ci nekk jàppe nga jàppe ko comme ni nga jàppe sa bopp loolu moom la ñuy seere ci moom te bañ fi ñëwee ba loolu la nga xam ci moom waaw te it ñun li may wax rek way way juram yii maanaam moom moo tax ay way juróom jàpp ma man may jàngale si daara ci waaye moom moo tax ay way juróom jàpp ma donte ne sax man duma dara waaye moom mooy moo moom moo baax baax boppam bu ñëwee maanaam niñ ko gisee ak niñ ko yërëmee ñuy gis bu dee lu diis la ñu bëgg bañ mu yëkkati ko bu dee lu ñu war a toppale la ñu di ko toppaleel ak di ko jàppale ci yu bari ngir ngir ngir bëgg am xelam di dal ak mu gën a mën a yaatu fa mu ñëw di fa liggéey ba loolu mu ñëwee fii di ko di ko nettali ay waajuram ba ci ay waajuram ci lañ ma ja ci ma jàppe ba gisanteeg mañ ba nii ba waajur yëpp comme comme comme doom yi ñu jëloo seen bopp noonu lañ ma noonu lañ ma noonu lañ ma ah, appel bi may lancé bala ma koo lancé li may wax mooy ku ne ci ñun bu bëñam képp doon metti bu guddi jotee bu ñëpp yi nelaw du nelaw sa loxo bi kese kese bu doon metti bu guddi jotee bu nit ñi di nelaw doo nelaw sa nopp bii bu doon metti bu guddi jotee bu nit ñi nelaw doo nelaw mbaa sa benn cër koo xam ne nag daa tawat tawat joo xam ne cëram yépp la jàpp kon war ngaa xam ne tawat boobu kon tawat bu metti la appel bi ñuy lancé nag lépp rek day delluwaat ci waxi yàlla ak yonente bi ak Sëriñ Tubaa képp koo xam ne ab jullit nga nga bàyyi xel li suñ borom digle woon wax ne ñun jullit ñi kat ay mbokk lan nañu yéwénal sunu bokk yéwénal gi nag mooy la yonente bi sallallahu alayhi waxoon ne ci benn hadisul qudsi si mu ne suñ borom gët bu ëllëgee dana wax ab jaam ne ko yow sama jaam bi diw sàngam lu tax ba ma raflee wóor dooma lu ma sol nga ne ko yow suñ borom nooy raflee yow mi nga xam ne yaa bind ñëpp moom lépp mu ne la xanaa xam ne sama jaam diw sàngam mam rafale woo boo ko woddoon woddu nga man yàlla mu ne tamit dana am ab jaam xam ne suñu borom dana ko laaj bu ëllëgee yow sama jaam bi diw sàngam lu tax sama jaam diw sàngam ba mu xiifee joxoo ko mu lekk waaw ba lu tax man yàlla ba ma xiifee joxoo ma lekk mu ne ko yow yàlla nooy xiife ak a mar te yow yaay aji bind ji yaa moom lépp juróo kenn kenn juru la mu ne ah xanaa xamoon ne sama jaam ba diw sàngam boobee nga xamoon ba mu xiifee baa mu mar boo ko joxoon mu lekk wala mu naan man yàlla man nga jox mel na ne man nga jox ma lekk man nga jox nga ma naan noppi mu yam yëmmu mu ne mu euh, suñu borom dana waxub ëllëgee ne ko yow diw man yàlla ba ma feebaree lan moo tax jëppale ma lan moo tax seet si woo ma mu ne ko yow suñu boroom jàll jalaaluk yow nan ngay feebare bañ lay seet si yow mi moom lépp bind ñëpp mu ne ko xanaa xam ne sama jaam diw sàngam ba mu tawatee ba mu feebaree boo ko boo ko seet woon danga ma fay fekk boo ko dimbali woon rek mel na ne man nga dimbali in tanturu laa yanturukum waaw waaw kon nag na ko ñëpp dimbali ñu xam ne yàlla mi ngi ci dimbali ab jaamam li feeg baa ngi dimbali mbàkkam jullitam yonent bi sallallahu loolu la wax kon ñoo ngi laasi appel ñëpp képp ku di jullit waaw ak mboolem uh, nit koo xam ne rek suñ borom jox na la genn ndomb ak tànk wala mu jox la benn uh, responsabilité boo xam ne askan wi nga ko yoreel nga xam ne doomu Sénégal nga dama jëlee doomu Garaayof waaye fépp foo ma a nekk ci biir réew mi bitim réew te dimbali ab jaam ñor la topp réew sa mbokkam jullit ñor la ñoo ngi ñaan ñëpp di woo ñëpp rawatina ñiy dox ci wàllum social bàyyiwuñu kenn kenn kenn képp koo xam ne muy kilifa ak diine muy kilifa ak aada képp ku man daal li nga man li tàmbulee dërëm ba milliard boo ko mënee dimbulee ngir ñu mën koo toppatoo mën a faju wér ànd ak ak dal ak xel mu dal ak mbokkam ak yu waajuram ak ak ak yu am di jàmmam ñëpp def ko ñu ngi koy laasé ñëpp daal te xam ne ku def yàlla nga defal ñu ngi woo ñëpp. jërëjëf euh, kon nag euh, ñoo ko gisandoo muy euh, sëñ Cheikh ñoom it nekk ay mbokku taalibe yoo xam ne ñun ñii toog dañ naan amuñu seen fay ndax nag comme ni mu ko waxee léegi rek. Euh, ku dimbale sa morom euh, suñu borom nga ko defaral ndax nag euh, tey jii nit ki nekk ci situation yaakaar naa képp koo xam ne mën nga cee def juróom war nga ko cee mën a dimbale te nag suñu rakk ji soxla na ndimbal muy nitu kersa dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xam naa nag kanam gi ngeen gisul waaye macha allah macha allah Euh, boole kook jàng bi ak yar bi euh, mënuñu ko wone ndax euh, mooy li ñu wax rek du lépp lañuy ñuy wax te buggul benn yoon kanamam feeñ ndax ni nga xam ne rek noonu la yaram bi yaram bi def ci feebar bi ma bàyyi yaay nga àddu ci li nga xam ne rek yaa ngi ko doon wax sànq man de sama waxukaay daa jeex ndax sama xol moo fees xol day metti sama waaye bu sa xol méttee ci ñi nga xam ne jàppalewuñ la moo xam jege ñaale moo xam comme mun doon sa xol dina dina naat dina féex yaay ci mbokku taalibe yi ni ñuy comporté woo ak moom bu ñu amee xew moom moo ci mën taxaw xale bu ndaw feebar na yaramam mel na ni mu mel amuñu benn seexlu ci moom ñu ngi ko bàyyi mu taxaw téye mbana di togg te lii tey ji buñ ko ko jàngalu woon ci kër gi amaana du ko mën kon euh, tey jii li la metti woon yëpp am na ci leen loo xam ne euh, ñii jàppale nañ la ci muy ñoom sëñ Cheikh daara ji kañ mun ma leen a fay. la jóge ca ku ndaw ka ba ci mag waaw mhm. mun ma leen a fay de. Mhm. ndax kii rakam feebar na ma ànd rek moom hôpital. ñoo ca gaaw ñoo ca def li ñu mën ma sàmba fekkuma ca ma dem. fekkuma ca moom rakkam rakku rakkam sama sëñ Fallou. waaw caat bi wallaahi azim daara jee ko faj. ca daara ja nekk. foofu la mhm. bokk wallaahi ñoo ma fekk au CTO ñoo ma fekk hôpital Fann ak seen alal. ak defal ma ak ndax ma. mel mm-hmm. ni maa leen sukk jur. boo waxee mu ne yaay dangaa baax. ma ne ko mm-hmm. yéen a ma gën a baax. man xam naa ne dama baax ci samay bokk. te gëstu wuñ ma kon yéen ñi xam ne damaa baax te defalu ma leen dara. Mm-hmm. yéen ma gën a baax. mooy waa daara ji mu ma leen a fay. ñoom ñi ma yëkkati ci kaw. lu jot sama njaboot day mel ni ñoom la. bi kii di laata dem Cas bi mu demee Casamance fii la ñu dajaloo fii la ñu toog. ñoom ñëpp ñoom sëñ Cheikh ñoom Ibrahima Sall ñoom ñëpp ak gune gi fii la dajale xaalis xaalis boobu dem fekk ko Casamance. ñu dajale xaalis di ma jox bu ñu rombee ni ma yaay am surtout kii. bi muy dem ku ci romb rek ànd mag ji la àndal mag ji la àndal. waaw yaay bu muy dem biñ koy yóbbu Casamance naka nga ko dundee. metti metti rek xaw ma sax ndax sama doom dina yegg. ndax boobu sonn na. waaw boobu sonn loxo bi dafa bëggoon a infecté. unu la loxo bi mais dafa làgg sax. gis naa ko. waaw baaraam bi gis ngeen loxo bi moo ngi noonu gis ngeen ko. waaw mënul mënul sax taalee ko te yëpp foofu la wér. ci foofu la amee baaraam bi ni mu lemoon nii. waaw xam nga comme dem na ba infecté. Mhm. bi muy dem dem na ba infecté léegi nag bu mu demee ba foofu la continuer ak paj euh, ngi rek sëñ bi di ko faj ndeysaan di ko faj ba mu wow mais boobu làggi na ba pare baaraam bi. làggi na waaw fii la góom yi nekkoon góom bi fii la nekkoon fii moom xam naa. bu ñu sàgganoon sax mën nañ ko dagg. loxo bi hmm. muy dem parce que booba jaaxle nañu def nañ lu ñu mën yëpp ndekete mu ngi infect mu ngi infecté. Hmm. waaw bi mu demee ba foofu nag góor gi donc mag gi yóbbu ko xaalis bu weex tàll mu dimbali ma ci. Hmm. seen bu ma ko ñàkkoon mu gën a metti. mu gën a metti. daara ji maam xaadim bu ma ko ñàkkoon mu gën a metti. waaw sama doom la moo topp ci moom moo nàmp jox ko. mais daf ko def ko bàyyi. dafa defoon ko barke démb bi fóotkat bu gisee yaram yi bu mu ko waxee ba ñu lekk ba pare dafa gontu dem yi wàcc yëkkati ñaar fukki junni jox papa ne ko sama yaay bu ko mottalee ñu dem Guinée mhm. ko Guinée mhm. waaye pour loolu mot faf nañu lekk ñaar fukki junni yëpp. te wallaay da koy lekk du toog. lekk nañ ko du toog. Mm, paj ak ordonnance moo mel noonu. lu ñëw bu demul si saa si ci paj mi. ci kër gi lay mag ji dafa defe ne lu mu dégg rek. Mm. boo ko ca defee rek mu wér. mu wér boo ko amul woon mu gën a metti kon sant yàlla euh, di wax ne rek euh, ñu bàyyi beneen témoignage euh, rek lépp ci ñi nga xam ne rek ñooy mbokku taalibe yi nga xam ne ba tey bàyyiwuñ ko ñu ngi koy jàppale ci li nga xam ne rek mooy paj mi gis ngeen yéen ñi nga xam ne yéen ñu dab ñu bàyyi leen rek ngeen seetaan témoignage boobu daal de soit léegi ci waxtaan bi sur la 7 TV ci seen émission Sourires du Cœur. nga xam li gën a métti mu nit koo xam ne boo ko gisee mu tawat. tey li ko fekk bu doon ñun ñun ñoo koy def bu doon ci kenn ko moom sëñ Cheikh mi fi toogoon moom moo koy def waaye tey moom ci daara la bokk moom ci daara ji laa bokk daara yëpp am nañu yéene yi dimbali ko buñ ko mënoon duñ ci duñ ci woo kenn du ci kenn na nit ki mën nga ko yéene ci xol mën ngaa xool nit ci ci li nga bëgg a defal mais ci xol la yem nga xam ne yërëm ko mais tey amoo koom moo ko dimbalee pour pour pour mu faju te nag wax dëgg li ngeen def ni rafetlu nañ ko daal li li nga waxoon laaj wax jërul guddal ndax dañu ci war a wax lépp sëñ na ko ñu wax rek mooy di di di ko ñaanal te sàkku comme ni ngeen ñëwee képp ku ko mën a dimbali ndax nit ki surtout jigéen bëgg na amaat wér-gu-yaramam ba delluwaat ci ay lu mën nekk la loolu jafewul wala moo tax sax ma teew ndax xam naa ko lii si Cheikh moo am maanaam bu buñ la waxoon ne daa feebar doo ko xam buñ la waxoon daa feebar doo xam ndax foo ko fekk moo ne ci buñ daal ji di liggéey bu dee daara ji kenn du ko ci man ci njàmbaar di taalu bi di ko bëgg lu baax ba pare nekk ku noppi ko xam ne du ko xamal dara maanaam bu xam bu demee ba génn rek xëy na sës na man xam naa li ma tax lu feer bu yàgg la ci moom lu yàgg la te ay fajurum jéem nañ nit ñi àndal jéem nañ daara ji jéem nañ lu ñu xam ci effort ba suñu effort ko waaye day am ni bon mbir ba demee ba tollu fi foo nga woo ñu la mën dimbali ñu dimbali la ko sàkk lu waaye wax dëgg lool bu doon kenn xëy na du fi gis gum jàmbaare ak yéen ñu am ci moom ak xam ne mel ci liggéey Sëriñ Tuubaa ay nu ma xam ne ci bëgg lu baax moo tax ñëpp ñu taxaw pour bëgg koo jàppale kon bu defee bu ngeen defee li wax dëgg yàlla ñëpp ngeen ko defal maam soo ngi dimbalee dimbal mbooloo ngeen dimbali ndax daara jëpp am yéene def ko te daara ji mbooloo moo wax ay junni lañ mais jëmm ji waaw ñu bëri lañ isul obraar waaw ay afaa ñu tàggu naañ ba ñoom ñoo ma demal ñoom ñoo ma demal parce que loolu ñoom ñoo ko waroon def mais ñu bari ñoo ne ci tool yi ñoom ñoo def ko waaw ñu xamoon ne lii sax biir leen duñu bari dana mbooloo bari ñoo xam ci jur ñu ñëw teew waaye moom nag comme mooy ustaas bi mooy jàngal xale ci daara mooy nekk ci daara bi ëpp a tax mooy moom daanaka si jur ñu wax rek daanaka matériel na li ñu am daal mooy ñi koy sàkku di ko ñaan ci yéen tamit seen loxo fa mu yem comme ñu fa suñu loxo yem yéen tamit ngeen commencé fa ñu gën a xam ko mën a dimbali mu dimbali ñu ko te yàlla rek tax te defal yàlla te bañ a defal nag kenn da ko def te yàlla rek tax ndax ku defal nit lu baax na yàlla nga ko defal waaw kon ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm bu baax te di ko ñaanal yàlla fëgg bopp moom tamit. jërëjëf euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, moom it euh, nekk ci li nga xam ne rek mooy daara ji. Mhm. ba tey rek ñoom it jàpp te tawoo bàyyi. Eh, ci li eh, nga xam ne rek dañoo sonn eh, jaabante nañ ba sonn. lu ñu am def nañ ko ci. lu ñu am def nañ ko dañoo miiraat seen bopp sax daara ji damaa dem ba am kersa ci ñoom. ndax li ñu fere ci man dama defe ne sax xanaa ñoom ñëpp laa boole jur. parce que mën nga fere lii keneen ne la bul ko def. Mhm. mun nga fere la keneen ne la bul ko def mais ñoom ñëpp di mànkoo yéene ma jàmm wax dëgg mënu leen a fay. daara ji mënu ma leen fay xanaa di leen dénk sëñ Tuubaa rek. Mm-hmm. mu tàkkal leen bañ leen mu bañ a saxaar. ñaan mm-hmm. naa ko suñu borom yàlla ma ko yàlla defal. amiin sama doom ji wér. mais delloo leen delloo ko delloo leen njukkal waaw. Mm-hmm. xëy na yàlla mën na ko def. yàlla dina ko def yàlla dina ko def yaay métti na trop massa massa massa. Euh, muy euh, jigéen joo xam ne ju jàmbaare la euh, foo ko gis mu ngi daw. ma dee woon tey kenn du ma miiraas. damaa mhm. ngi liggéey. liggéey nga ba sonn. liggéey naa ba sonn. Mhm. tey bu ma dee woon tey samay bokk ñooy ñëw naana li ma liggéey te xam nañ li ma nekkee sama biir kër xam nañ ne am na ku may faj. Mhm. te bu doon beneen famille. wala bu mu nekkoon beneen jigéen. mbokk tas na. parce que dalay wu ma dalay wu ko sama kër sama doom bi muy dem dara jotu ko. kër ga mu ko dalee maag borom kër ga ñoo bokk benn baay. Mhm. may sàmm loolu waxuma ci ŋaanguma ci du ma dajeeg moom sax ba mu xam ne sama mag sama rakk ji amel na ma dara. Mhm. dama mel ni mburoog soow ci moom te amelu ma ko dara. Mhm. parce que bu ma ko ameloon dara mu yëg ko dañoo bokk benn baay. te foofu la ko dale mais mosuma naan sax. lu ko ndogal fu ne la la mën a dalee nga jàppee ko noonu rek waaw man noonu rek laa ko jàppee. jox ko suñu borom. mais te xam ne euh, euh, mën. bu bu fekkee ne niñ ma bàyyee noonu la ma daara ji bàyyee damay dof mais comme daara ji ñoom jéem nañu ba sonn moo tax waral moo waral lii am mm. émission bi émission bi du loo mës a bëgg ay at nga koy wax ay at du loo mës a bëgg mosuma ko mës a bëgg yaay mosuma ko bëgg man mi am naa xam naa ki ma koy defal bëgg ko bëgg ko bëgg ko bëgg ko bëgg ko bi ngeen ñëwee rek daa daw fa fale jooy ba bugg dee mm-hmm. bëggu ko ah. mooy li nga wax rek euh, nit di nga toll foo xam ne ñàkk pexe ngay demee ñàkk pexe ndax keroog ba ngay bi ma lee mujjee gis sax maa ne bañatuma dara ah, bañatuma euh, dara lépp loo xam ne rek du lu ñaaw wala lu ñuy tere euh, mën naa ko def pour sama doom ji mu mu muy wane rek ni sës nga la nga amoon yëpp def nga ko ci wàllu nit ku ku ko mën rek na ma dimbale. Mhm. parce que def naa lu ne. waaw surtout fajkat yi. maa ngi leen di lancer appel waaw fajkat yi nañ ma dimbale te yàlla rek tax. nañu jàppale ndax nag ku ci mën euh, dara rek. Mhm. boo gisee sama doom ji nag ma ci jéemal dara rek. Mhm. waaw ba saafara am. ba saafara am moom tayalu la dem ñu la faju mais dafa yoratul lu mu. yoratuma dara te lépp loo xalaat rek euh, loo xam ne. Guinée googu ñu ma wax. keroog bu ma yoroon xaalis damay dem. wallahi azim duma fi mais lu may yóbbu. mag ji def na li mu mën te loolu xeeñul sax faafu ma jëm. dañ ko dañ ko mujj lekk. dañ ko mujj lekk dañ ko mujj lekk yaa ngi jaay di dem di wuti ay ndugg di ñëw. maa ngi jaay mhm. seen. Mhm. waaye bu ma jaayee bu ma ñëwaatee rek nañ lekk nañ naan rek. Mhm. seen tootuma dara ndax liggéey bi am yenn âge moom. <laughs> boo ko xaaratul ci sa doom yow du yaa koy amati. du yaa koy amati. ndax liggéey nga ba sonn. Mhm. pour say doom. yàlla mën na lu ne. waa nit dem euh, ba ba ba tollu benn at bi. suñu borom soog laa wal. waaw paj mi moom. Mhm. wax dëgg seen lu ma am ma ko gënal. Mhm. moo ma gënal sax kër caabi kër. sama doom ji faju moo ma ko gënal. ku ko mën rek moom rek mën na laa jëndal kër. ku ko mën rek na ma dimbale. waaw ci gën a kii soxla ma dara lu dul paj mi rek. nañ ma fajal sama doom bi ku ko mën rek saahir wala baatin parce que damay dox nii rek mais li may fanaanoo mooy li ngay wax ak ku la gis ngay dox mënul xam li ne ci yow déedéet mais damay fanaan ba bët seen ma nelaw léeg ma sol ay verre non bi de daa sol ay ver tey ma xam li ma xam ndax ku fanaanee ay jooy boo solul verre dinañ la laaj looy jooy wala boog sa lu ne ci sa bët fi ngay jaayee fi may jaayee looloo tax may sol ay verre jooy yi moo bëri massa doy na waar euh, kon nag euh, dañ koy bàyyi rek mu daal di lancer appel ñuy seetaan métti na trop euh, yaay booy ma bàyyi la rek nga wax ñi ñuy seetaan ñëpp ñëpp ñëpp senegal ñëpp képp ku la mën a dimbale képp koo xam ne xalaat nga ko te jàpp ni mën na la dimbale ma bàyyi la nga lancer ko appel fii ñoom ñëpp rek Cheikh Bakhoum lay bàyyi mhm. ñun ñoo dëkk Diouroup la dëkk man dëkk Diouroup laa dëkk te sama nijaay mooy wuy juram. lu mu mën ci sama feebaru doom bi balaa may wax doxandeem. moom laa koy njëkk wax. seex Bakhoum Cheikh Bakhoum sama yaay kër maamam la yaroo jurul. kon sama mbokk la. te ku ma keneen ku ma ñaan dama koy woyaan. waaye Cheikh moom lu ma defal. c'est parce que daf ko war a def. dëgg dama dimbali ak mbooleem jullit ku ma yàlla booleel. waaw cest à kilifa yi boo leen jot ka lay booleeg moom mooy jafe. Mhm. mais ku ne soxla naa ko. ku ne ku ne soxla naa ko Wally Seck bu ci mënee jàpp mhm. mais comme yaayam dafa wàññeeku maa ngi ko koy jaale bu baax Seck mhm. Mhm. waaye nag koo xam ne dafa jóge ci problème mënoo ko wax yenn yi mais bu ko déggee lu mu ci mën rek comme social lay def ak jabaru président bi yëpp xeebu ma kenn ci sama feebaru doom xeebu ma kenn ku ma mën a dimbali rek te yàlla rek tax yaa ci biir bu ma limee damay juum bu ma limee damay juum ndax mën naa lim ko mën naa fàtte ku ma jege. wala ma fàtte koo xam ne moom moo war a mën a dimbale. mais ku ci yàlla euh, fekk euh, boole rek nga dimbale ma ci sama doom bi bañ mi. bu ñu jëloon avion yóbbu ko sax doyuma. waaw bu ñu jëloon avion dem faji ko bitim réew sax doyuma sama doom ji. na faju rek. na faju rek waaw na nan la koy dundee moom. papaam son dafa sonn dama dem ba yërëm ko. damay fàtte sama bopp. xam nga loo am am problème sa borom kër moo la gën a am problème moom mi jabooti ñi ak démb dafa yëkkati ne ko demal setewoo mun ko papa dootuma dem fenn dangaa sonn hmm. ko delloo cinq mille bi maa ngi tëdd xam ne ne papaam amul loolu mu ko jox xamul fi mu ko joxee daf delloo cinq mu ne ko dootuma dem fenn bàyyi ma xaar yàlla du xaar yàlla billaay du ci yem. Ah, parce xam ne yoratuñu ñu ngi koy ñaanal mu bañ ci yem. Hmm. yoratuñu. kon nag numéro yaa ngi noonu pour képp koo xam ne rek euh, bëgg na ko jàppale mën nga woote ci 77 438 21 76 wala nga woote ci 77. 976 60 26 loolooy numéro yi nga xam ne rek képp koo xam ne rek bëgg na jàppale suñu rakk ji nga xam ne sonn na lool lool lool euh, problème euh, derm la am muy li nga xam ne mooy problème de peau muy euh, loo xam ne sonal na ko lool depuis 2012 ba tey mi ngi tëdd dem na dema dema dem ba day gas yaram bi di def ay góom di siit dem ba war a ba nar a sax paralysé yàq benn loxo bi heureusement benn baaraam bi ah karawam sax dem na karaw bi daa deñ karaw bi daa loolu lépp euh, doon loo xam ne rek feebar bee ko waral kon nag képp koo xam ne rek euh, mën na ko jàppale ñu lay ñaan nga woote ci ñaari numéro yi ah comme ni ma ko waxee loolu rek 77 438 21 76 wala beneen numéro bi nga xam ne rek euh, joxe nañ ko léegi mi ngi noonu affiché kon nag ñu leen di jaajëfal baax a baax ma bàyyi la nga tàggu yaay ba waaw maa leen di jaajëfal di leen gërëm di tànk yi ngeen doxee ba ñëw suy doom yal na bu mu nekk seen tànk yu mujj mm-hmm. te barke li ngeen di def mu am barke yal na ko yàlla barke mm-hmm. barke sëñ Touba mm-hmm. samay mbokk taalibe rek laay lancé affaire rek nañ ma dimbale ngir jëmm sëñ Touba nañ ma dimbale waaw nañ ma dimbale sëñ taxaa sax buñ ma fa mënoon a yóbbu ma yóbbu fa sama doom mu gis ko sëñ bi sax bu ma ko mënoon a yóbbu sama doom mu gis ko ñaanal ko waaye fi mu ne nii tey boo soxlaa sëñ bi balaa nga koy jot mhm. di nga sonn mhm. te bu ñu nee Tuubaa ca kanam yaa nga ca bu ñu nee mhm. nangam yaa nga ca te boo soxlaa sëñ Muntaxaa pour nit bindeef jàpp ci sa loxo ne la am sëñ baa ngi nii mu ñaanal la waaw am na yoon buñ ma ko yóbbuloon ci sama sama sëñ Muntaxaa mu ñaanal ko rek sama xol sedd na waaw kon loolu appel la booy lancé waaw appel la booy lancé sama mbokku taalibe yëpp is bu yi ku rek te nga mën a jàpp sama loxo bi sama loxo doom bi yóbbul ma ko ci sëñ Muntaxa gis ko rek maa ngi lay sant maa ngi lay ñaan nga jàpp ci waaw sëñ bi daal na ko gis li nga wax li nga wax lu ci nekk am na yoon ba tax na bu ñu jaaree ci yoon bi rek yoon bi euh, rek dinañ yegg directement ci moom waaw nañ ma dimbale sëñ bi gis sama doom mm-hmm. kon nag euh, loolu appel la ñuy euh, ñaan suñu mbokk daal moo daal loolu rek Euh, ñu jàppale ñu rek euh, ba téye suñu rakku doom bi yóbbul ñu ko ba ci maamam jooju mu daal di koy ñaanal ndax nag am nañ ci yaakaar bu baax a baax rek na ko yóbbul mu gis ko <laughs> jërëjëf yaay kon ñu ngi lay jaajëfal waaw jërëjëf dégg nañ sa appel yàlla mën nañ koo sottil mu jaaree ci 7 voix du cœur sur la 7 TV ba tax na ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a doon teewlu di leen wax ne gis ngeen di lañ leen indi loon tey suñu rakk ji di assu gaawaan seen di suñu rakk joo xam ne macha allah Euh, dama naan waruñu ko seetaan nii waruñu ko seetaan nii ndax nag euh, li nekk ci moom yëpp bëri na euh, war nañ ko mën a dimbale mu faju daal di wér daal di nekk ci activité am liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal sëriñ bi waaye nag dem ba am borom kër am njaboot te yàlla nañ ci ah. fekk ah. te yàlla yaay yow tamit yàlla na ah, ko fekkee incha allah di ko fekkee yàlla na ko fekkee ko borom mhm. na ko yàlla na ko suñu ndax yar bi ma def ci moom mhm. yàlla mottali ko. mottali ko parce que jigéen boo ko yar. Mhm. yenn façon yar yi. Mhm. borom këram ngay sóoraale. dëgg boo ko yaree yar bu baax rek. Mhm. borom këram ngay sóoraale. pour mu bañ a sonn pour mu bañ a te ni ñu gis ci moom rafet nañu njott ne bu ko amee dana te te dina ci. am comportement bu rafet. ndax nag euh, da nga koy xool rek ñeewantu ko. ci li nga xam ne mooy comportement soxlawul sax nga koy xam ñu jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci émission bi loolu mooy numéro yi képp ku ko bëgg dimbali rek ñu lay ñaan nga wootee ci ñu dara nag ndax nag dërëm bu fekk see dërëm sax mu daal di doon dara kon nag euh, ñuy jaajëfal bu baax ñi nekkoon ci wàllu cadrage bi euh, Kébé Ndiouga Ali euh, Chéri Anta Bayou Assane ñu ngi koy jaajafal bu baax a baax di jaajëfal Papa Diop di jaajëfal bu baax a baax Papis ak ñi nekk ci ginnaawam yëpp di jaajëfal waa montage Lamine Mbengue ak ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal bu baax a baax ñi nekkoon ci wàllu logistique bi Ousmane la di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon teewlu sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur ñu leen di wax rendez-vous est calé le mardi incha allah euh, pour un nouveau numéro de votre émission 7 voix du cœur sur la 7 TV allez merci beaucoup à vous.